yëkkati naa réew maa ngi yëngu ko quotidien ko quotidien ma président Macky Sall ni ñum réew mi bëx bëxi daal jax ba mel ni mar day taali yéene kaay bi ne ma xanaa déggoo Sall ngi ne ñum mu de daal di taxaw fa mu taxaw wàccewul garde bi benn yoon tribune yéene kaay naan man alal ju bëri joo xam ne Sénégal ñàkk na ko ci yëngu ñu caxat-caxatee alaluk doomu aadama yi bakkan yu bëri daal di ciy rot l'observateur ne maa ca a ñëw tribune ne ko ma yëgli manifestation yi nga xam ne am na ci réew mi daal di jural Sénégal daanaka jaxaat na ma tribune naan kon président Macky Sall wax na ca nee nañ ko leeral dëgg-dëgg ñaata ak fan ak fan la ñu daal di yàq ci réew mi waaye ubbi ak enquête ci leeral dëgg-dëgg ñan ñoo faatu ak ñan ñoo leen faatu waaye wax itam ci yeen anam la ñu faatoo sàll ngaari lam tooro burge de ma ngay sàkkob mémorandum les fa yéene kaay naan man président Macky Sall daal ma ngay xool coow li fan la responsabilité yi féetee Lat Diop ci l'observateur nan ko xanaa ci Ousmane Sonko may woote fitna fo daal ne ko sàll fi mu ne xamagul nee na nañ ko wax dëgg-dëgg fan la responsabilité yi féetee ñu rëq ndig ndax nag ay agression la saaga yoo xam ne daal di nay mitti wala ñu jëmale woon ko nag ci état bi ak ci république bi waaye tam ay institution am di banqaasam jëmale woon ko ci nation sénégalaise façon yéene nag andi fitna ci réew mi waaye tiital askan wi ba dem ak dikk dootul amati ci réew mi le quotidien le quotidien naan ko xanaa déggoo moom président Macky Sall nee na ak lu mën a am du beese gardam réew mi quotidien naan kon président Macky Sall ma ngay wax le soleil naan Sall kay ca la mu nekkoon ci sàmm askan wi tey la ca gën a nekk fas yéene nag wax gannaaw dialogue national bi bu liggéey ba nuppee le témoin kon président président Macky Sall gannaaw ñaar fukki fan juróom ci weeru juin lay wax gannaaw bu nu tënkee li ñu wax ci dialogue national ba ba nuppi Sall nag la ñu wax ca dialogue ba la yëgli askan wi de waxul ak yéen ci faatu bakkan gi Walf Quotidien mel ni ku naan kon baraw li mu wax ba nuppi jaale na massawu ña ñàkkale teg ci nag daal di génne yet wi daal di na ña nga xam ni seen loxo dugg na ci mbir mi danañ ko réccu wala libération yéene kaay ne ko jàpp gi de mi ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi suweem lido gi mel ni tulleeg màlle na kaso Olivier Boucal jàpp nañ ko bois sacré ba Pape Abdoulaye Touré Bentalab Sow Cheikh Baara Ndiaye ak Ndeye Ndack am retour de parquet retour de parquet yi dafa sakkan ba libération ne ma léegi ci transport public lañ leen di dugal xajatunu ci woto administration pénitentiaire yi di maître Ciré Clédor daan ni juróom-ñeenti yoon dem naa ko kër Ousmane Sonko wàññi nañ ma las yéene kaay naan maan maître Ciré kay dafa dem kalaame ministère de l'intérieur ci tëj ràpp gi ñu tëj Ousmane Sonko te teguñu ko fenn Cheikh Agibou Soumaré ci tribune yéene naan kon président Macky Sall xoolal nga geesu ña nga xam ne ñoo la bëggal jàmm di la wax dëgg ña xam ni seenu ay ak nguur gu neex moo leen fi teg te ñu lay jay ci loo xam ne du dëgg du yoon xool ko l'enquête naan ku wax ci li mbaa di nga wax ci lee ndax nag faw ñu xool dëgg-dëgg jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel fu mu daal di bàyyeekoo l'enquête daal di ne ma arène politique baa ngi mel ni tulleeg màlle mel ni simbu gaynde ndax jaxasoo violence gi daal di bare te métti lool en gi waaye fàttante bakkan daal di ne riig sampug ndi gëm ci sunu société ilimaan abi kan bu lekk africa daal di dara pouvoir wala bar sàq la ñenn ñi jàpp ne moo am ci réew mi jël sénégal nag def ko toolub xare docteur Moussa Diop daal di ne am nañu dëgg wala amuñu ko lu ci mënti am daal politiciens yi nga xam ne xam na ni mbedd bi déggal na leen ñoom ñoo ñee ñooy daal di jañax sénégalais ci seen biir ñuy daal di xeexoo Lat Diop ci l'observateur naan tudd leen tur wi Ousmane Sonko la Birama Ñaa bu jóg jot na daal di ne ko déet fi mu ne kay réewum Sénégal Sonko baax ñoo bon Bougane gay Dany baax ñoo bon ndax nag lan doon wax ci président Macky Sall yëpp maa ngi koy gëm moo jàpp nit ñi di tëñ-tëñal ak di caxat-caxatee seen ak ak yelleefu doomu aadama Birama naan kon demal Sall demal bàyyi naa la l'observateur naan ñu ngi dund jaxannama ci réew mi rawatina ña nga xam ne seen ñooñ dañ cee faatu yéeni kaay bi naan maan Lamine Souaré moom balub nëq la jël addunaam nar fa jaare yàqu fa yallaaxu ndax yi manifesté direct news ne ko université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dund jaxannama goo xam ne mësu koo dund ñu taal lépp loo xam ne cosaanu daara ju kawe ji la mu mel ni acteur politique yi dañ ci ne cell le tee moo yéeni kaay ne ma déet duudu ka kay yi la ñu waroon wax ci boppam ci réew mi la ñu waxul bu ñu demee bay xas président Macky Sall di ko tëñ tëñal ak wax ju lépp mooy njaag nanu wax nag ña nga xam ne ñoo woo xale yi ci mbedd yi yàq alalu askan wi rawatina nag yàq fa nga xam ne fa la ñuy utee xam-xam di ko fa sàkkoo duudu kanaan ña yàq tooñ sénégalais yi ci caxat-caxatee seenu moomeel ak seenu alal duudu naan ko war a yedd ñoo ñee nga war a yedd Seydina Seck ci tribune yéen kaay naan man waa diaspora lay waxal xam ngeen consulat yi nga xam ne yéen a ngi koy attaqué ñun diaspora ñoo ciy sonn ndax dinañ bëgg këyit duñu ko am dinañ bëgg bindu ci élection yi duñu ko am suñuy néew a ngi taggatémbe ñu ngi bëgg ay këyitu juddu ñu ngi bëgg ay passeport ñi nga xam ne dañu bëgg tabaski si te amuñu këyit farfa cang Seydina naan li nu yàq dëgg-dëgg ñun diaspora bi ñoo ca nar a jooy wala njaga si laa ci réew mi quotidien ne déet consulat yu ñu tëj kay mën nañ fa jaaree dàq élection yi la min Diallo ci l'indépendant yéen kaay naan war warta suux Sénégal daanaka mooy ruu Afrique waruñoo seetaan réew mu mel ni Sénégal di suux ci loxol président Macky Sall ndax nag fii lu njiit njaag ci réew mi nañ ko joxoñ te wax ko mooy njaag moom Sall moo fi jël ay opposants di leen tëñ tëñal di leen nal ni ko yoruk limon ay ñoñam waa APR jël ay pick-up L200 di ci dugal ay woy yoo xam ne ñooy jàpp askan wi di leen tiire ñu ne diita waaye Sall ngay jalo gam de di teex-teex may ree mel ni réew mi dara xew fi Mamadou lamin jalo naan kon mën ngaa ree ci bii boor waaye ci bee boor ñu xamal la ni lépp yowa le mandat yéen a kaay naan ak lu mën a am waa Pastef de nee naan Ousmane Sonko mooy seenub candidat critique yéen a kaay naan kon ak lu ngeen mën a wax ci réew mi président Macky Sall nee na réew mi moom jodd rek nation bu Sénégal kenn du nangu ñu di ko sax-saaxee le police patron bu yees ba ñu tabboon yoroon renseignement bi ci wàllu capital bi naka lañ ko tabb lañ ko dàqaat réew mi jaxasoo na ne ba ci ñeent ci néew daal dinañ leen di génnee diggante jifeer ak jowaal président Macky ci biir yéene kaay bi naan dara bëgg caxat caxatee réew andi fitna tiital askan wi la ñu bëgg te duñu ko nangu maître Abdoulaye Tine ci turbine yéene kaay naan kon président Macky Sall abal nu sunum réew nu mu gën a gaawee nga a am mi bu leen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 sur wwwsénégal Sénégal 7, le roi de l'information en temps